mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des mourides Touba ca kanam nuuru daaray ni ginnaaw bi mu dooree liggéey bu am solo bi jëm ci defaraat mbeddi Touba yi ak assainissement bi di liggéey boo xam ne jamono bi mi ngi wéy muy yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ne ajuma ji ñu dëdmal dëppook ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atum 2020 ginnaaw buñ jullee gee ba noppi daañu door pompe mboolem dëkk bi di Touba loolee na mboolem askan wi nekk ci dëkk bi ñu denc bu baax mboolem ñam yi ñuy jëfandikoo ak mboolem ndab yi nga xam ne dañ ciy def ñam ñu tëj ndaa yi bu baax ak mboolem bassin yi nga xam ne dañ ciy def ndox ba ci lekk gi nga xam ne moom la ñuy jox jur gi loole lépp Touba ca kanam mu ngi ñaan ñu denc ko bu baax ndax pomp gi nga xam ne moom lañ bëgg amal ci dëkk bi yépp jële fi yooyu ngir xeexaale sibiru bi gunóor yi ak yeneen yi nga xam ne mën naa lor askan wi